salaamaaleykum gars yi Barça noq na Real Gavi ak Pedri maa ngi ñaan yàlla ñu am contrat ba deux mille quarante trois Sarko ñaf na Ada boo booy ndaw yi nekk ci làmb ji di wax wax ju bari danoo war a bàññi wax ju bari ji te dem liggéey gisoo sa waay da leen saaga ba pare daan leen ba pare da koo naq da koo kal jaay ko doole daal koy des daal di koy daan. wàññi leen wax ju bëri ji su la jàppee dama lay lekk dama lay def lii nangam nangam doo dara doo tus ah di wax di n'importe quoi bu boo ñëwee ci géew bi doo wane loolu il faut sa waay gars yi nag ngeen di wàññi wax ju bëri ji félicitations Zarko yàlla na la ndam li jig yàlla na la ndam li jig yàlla na la ndam li jig ana ñu àndaloon ak Zarko man moom fëraluma kenn waaw mais Ada Fass procès lamb incha allahu rabbi yàlla dina la defal jàmm Barça ñaf na Real tey